bokki ji bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh mi toog ci ndigalul Cheikh Amadou Mountakha jaar ci Cheikh Amadou Bachir ba ñëw ci moom mi nga xam ne liggéey yi ñuy liggéey Serigne tubaa ci tubaa mooy jëriñ ji mu dajale mboolem bokki taalibe yi fii ci kër Serigne tubaa gi di jot liwaat ndigal loo xam ne am murit bu ne min nga ndigal ndigal nag saa bu jógee buñ ko seet lu jëm koo jëfe rek ci war te mooy liggéey boo xam ne sëñ bi da ko koo jox mu war koo bokk ak taalibe yi yëpp fu ñu fi mën a nekk ci biir dëkk bi ak ci biti dëkk bi muy kanaal yii nga xam ne dafa nekk ci biir dëkk bi teñ def ko fi def ko fi ngir sëñ Touba mu mel ni am na ayib yoo xam ne dugg na ci ci boor bu ne ci nit ñi nga xam ne sotti nañ ci suuf yenn yi sotti nañ ci mbalit yenn sax am na ñoo xam ne sax banaal nañ seen i ci kanaal bi te loolu taxu ko woon a jóg sëriñ ñu xam ne liggéey bii sëñ Tuubaa moom liggéey luñ fi kenn ku sëñ Tuubaa dëkk bu sëñ bi nag ku fi ñëw fekk ku liggéeyal sëñ Tuubaa ba liggéey ba jag nga fexe ba mu yàqoo ci yow dara jaru ko sëñ bi loolu tax mu yónni sëriñ Cheikh mi ci taali bi yëpp ngir ñu yëg ne ñaar fukki fan ak ñett ci weeru tubaab bi fas nañ yéene ànd ak mboolem taalibe yi fu fi kanaal nekk te te sàkk ñu sakkar ci ko ni ko sëñ bëggee am murid nag bu jotee ndigal def gi rek moo koy jariñ te wóor na ma ne ndigalu sëñ Tuubaa yi mënta ñàkk am te mënee su koo ñàkk def kon nañ fexe ba bokk ci ñi ko def ndax suñ ko defut ay taalibe jóge ci àll bi defar ko dong loolu rek a tax sëñ booleen ci noo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu jox sëñ moom mi nga xam ne mooy suñ kilifa te ay waxam mën a jot te mën koo déglu ñu bàyyi ko mu wax bisimilah sëñ Cheikh kon bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi rawatina suñ bokki taalibe yi nun ñi bokk am tawfeex yi dëkk ak sëriñ Touba ci dëkkam bii di Touba gu sell gii noo ñëpp di sant ñëpp di leen jottaleeti ndigal loo xam ne daa jóge ci sunu kilifa yi jóge ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mii jëw li ñu liggéeyal Serigne Touba bi nuy ñaan sunu borom bàyyi ko fi wéral ko ba ni yéene yéenee liggéeyal Serigne Touba ma ne ni ni mu ko yéenee ànd ak taalib yëpp ma ànd ko nekk taalib yëpp ndigal la jaar ci Cheikh Mouhamadul Basir mu Cheikh Abdoul mu woonu wax ne sëñ bi daa wax ne daa bëgg ñu jàppale maire bi dëkk bi ci wàllu googu wàllu canal waaye li ñuy njëkk a leeral bala ñuy wax wàllu canal yi mooy daa bëgg waxtu wu nekk nuy jekk di defaru ngir liggéeyal sëriñ Touba ci dëkkam bii ndax dëkk sëriñ Touba bii muy Touba ku nekk xam na ni mu ñoree sëriñ Touba ku nekk xam na sëriñ Touba dëkk bii pàggutee bi ko fi suñu borom fàggul ba jox ko barab bii mi barab bu sell bii Serigne Touba sanc ko dara kenn nekku fi woon moom képp mu gor garab yu njëkk yi ak ñoñam ñu baax ña dëkk fakk dëkk bi sunu borom won ko leer gi ci dëkk bi ak barke bi ci dëkk bi ak sell gi ci dëkk bi bi mu sancee dëkk bi ànd ko bokki taalibeem yu baax yooyee mu ànd loon liggéeyal yàlla mooy sun maam yu baax yi sun baay yu baax yooyee di góor yàlla yooyee nga xam ne ba Serigne Touba jógee jël ci seen kanam dañoo jaayante summiku bay léppi àdduna dëgg la dëgg mal seen borom topp ci gannaaw Serigne Touba noonu ko Serigne Mountakha doon jàngalee keroog ci kori ga mag ñooñee foofee lañ jaaroon ba àgg fa ñu àgg bàyyi àdduna ak li ci biiram dëgg mal sunu seen borom ànd ak Serigne Touba ñooñee ñoo goraloon Serigne Touba dëkk bii dëkk bii bañ ko goree muy genn këru Serigne Touba ga ca dóodóorum ngeer ba Sëriñ Tuuba gis fi lam fi gis ñaan fi lim fi ñaan ba ñaan fi bayitam woowee wajaxal ilaahi maskani Tuuba abat misla smiha ginnaaw Sëriñ Tuuba nag doon ñaan Tuuba gii mel na turandoo ba ca àjjana kon Sëriñ Tuuba lu ñaan boroom defal na ko ba noppi kon loolee am na ba noppi te Tuuba ku xalaat gis doxin wi gis melokaan wi da nga xam ne ñaanuk baatin gu nangu la baatin ba ma ma ngay dem waaye ginnaaw baatin bi dem nag faaw maa nag saayir si saayir si nag dan nun noo koy saytul sëriñ bi na ko sun maam ya gore woon sellal gi ak defar gi nun la war kon buñ demee ba dëkk bi noo am ndigalul bu ñuy bëgg a màggal Tuubaa di ko setal ak bu ñu màggalee ba noppi te nun ñëpp nu gis njariñ li te ndigal la Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moo ko njëkk a wax sëriñ Mountakha sëriñ Mountakha di ko yónni sëriñ Basiiru ci noonu sëriñ Basiiru li mu njëkk a wax mooy nañ dem ci sëriñ Cheikh Jëmb mi fi nekkal Cheikh Ibra Fall mu wax ko njabootu Cheikh Ibra gépp waaye bu ñu dellusee nañ ko wax taalibe sëriñ Tuubaa yëpp daal suba mooy seex si daayira yi mbooloo yi fu ñu fi mën a nekk bu dee liggéey bu mel nii nga xam ne day liggéey bi dëkk bi noonu waa dëkk bépp kenn ku nekk gëm ne ci ñi wax defal Serigne Touba dëkkam bii nga bokk ngir sàkkoo ko ngërëmul Serigne Touba waaye xam ne noo koy jare it bu dëkk bi baaxee loolee nag setal dëkk bi bale lan ci xamoon ñu dooleel nu ci beneen liggéey liggéey bi ñu dooleel mooy canal yi nga xam ne moo ne ci dëkk bi te canal yi ñun ñëpp xam nañ ne canal yi dafa doyagut ndax dëkk bi li ci war ci ay tali bu ci amee tali bu nekk war a ànd ak kanaalam noonu la war a àndee ba dëkk bépp jeex waxuma talante bi waxuma corniche bi waaye dëkk fi Tuuba àgg rek tali yi dafa war a àgg kanaal yi àgg waaye diggante bi nga xam ne moo am kanaal yi nag li muy ndawe ndawe diis na ci ñi ko war a seetu <coughs> ñi ko war a seetu muy doon mooy état bi te bu dee état bi ONAS la ñuy wax wala mairie dëkk bi te ñoom ñaar ku ci nekk daa nga ci def li nga mën waaye kenn mënu ko woon a saytu ba matal ko ONAS daanañ def muy des am muy am aw des maire bi def muy am aw des daayira Colombie yi daana ci dugg di ci jàpp waaye lépp muy am ay des desesaan yooyu nag bu àndee ak ñu xam ne màggal gaa ngi jëm ci nawet sakki-sakki yi gën a am ndox mi di gën a téye nit ñi ndox mi mujj ànd ak salte yi génn ci bitti loolu tax sëriñ bi ne faaw ñu sàkk ci pexe pexe mi nag menn képp la mooy taalibe sëriñ Tuubaa yëpp génn seetal dëkk bi sekkal ci kanaal yi bu ndox mi ñëwee dem bu màggal Touba bu ñëwee ñu seetal dëkk bi lépp ànd sell mu wuyu ji turam wa muy Touba la ville sainte kon nag liggéey bi sekkal ci boobu yii lañu ñu lu jox nu war koo def dibéer ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin fukki fan ak juróom ñett ci weeru kori ñëw na ba noppi mooy fii nuy wax yéen tey ji dibéer la dibéer tey bi ji dellu see waaye date yee gën a wóor 23 juin 18 sawal ñu bëgg nag nin ko baaxoo defee bu ndigal jabi jibee nun ñëpp nu génn defee ko na sëñ na ko sëriñ bi bëggee la ci des nag mooy marché bi ndax ñaari yëf moo am ci biir liggéey bi canal yi nga xam daa am ñoo xam ne dañ cee branché seen tiwo yi kër tiwo canal yooyu ay oto moo koy pompe te koo xam ne dindiwo sa tiwo kër bu ko oto bi pompee la ca nekkoon lépp dana ñëw tuuri sa bët te boobaa la ci fekk yaa ko teg sa bopp ku ko man dindi sa canal tiwo ba nga ci balaa oto baa ñëw oto yi ca car lay nekk wol ko bu ko wolee lépp ay jaaral ci canal bi génn koo am bu ko defee nag foo am buntu ndar dana fa génne koo xam ne sa tiwoo ci biir canal bu ndaw boobu nga ko defoon la ca nekkoon ci biir sa ëtt lay jël waat boobaa loo ci fekk ko teg sa bopp muy wàll gi nga xam ne marché occas la dañuy ubbi canal ti tibb ko gi loxo ñaari mbir a ca nekk ñi nga xam ne dañoo teg seeni i cantine wala seenum njaay ci kaw kanaal bi wax nañ leen ne gaaw ca tesubaar lu fa waaye am na nga ko fa jëlee ndax bu juróom benn waxtu jotee service d'hygiène dañu ñëw pompe si bu ñëwee bi ñu pomp lépp la ñuy pompe ku xeet ko dugg wala mu yàq sa marchandise yaa ko teg sa bopp ku fa jëlewul sa marchandise ba dibéer ci suba ba fa bàyyi faal yi fekkee marchandise ak murit yëpp ak machines yi danañ dajj lépp sànni ko ci àll ba liggéey li ñu sëñ bi liggéey loo waaye li ñu sëñ bi sant faaw nu def ko ci gàttal jërul sori waaye li ñu sant daan ko def buñ cee des danañ ko def bu nu cee désir daan ko defee ne ko sëñ bi bëggee waaye dan koy def kon nag nañ ñëpp waaj nan fa yéene liggéey yi ña fa nekk nañu waaj defaru nu ñëw def li seen bi bëgg muy ñu jariñoo ko lépp sell lépp set kenn ko demal sa liggéey lu ca waay jëlee jariñoo ko kon yàlla na sëñ bi gën nag taw fee xam ba li mu bëgg nu defee ko ni mu ko bëggee mën fa jógee dajee ngërëm moom asalaamaaleykum wa rahmatulah mi ngi tàllal loxo yi murit yëpp fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ak dëkk bi ñu xam ne liggéeyu sëriñ bi la ñëpp ko bokk kon sëñ bi nee na bàyyiwul fenn ñu ngi koy fàttaliwaat mboolem taalibe sëñ Tuubaa yi mboolem julli yi nga xam ne dañu ci biir dëkk bi liggéey bi liggéey bu waa dëkk bi la waa dëkk bee ko war a defar ndax defar gi ci ñoom rek lay dellusiwaat bu setee canal yi sekkar ci ko ndox mi bañ a tee taa wér giñ ci suñ ba suñu suñu njaboot lay dellu ci kon nag sëriñ bi nee na mi ngi tàllal loxo ñëpp rek bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen bàyyiwul benn dayre bi ne ci biir biir dëkk bi ak bi ci biir dëkk bi ak mbooleem dëkk yi war dëkk bi tam sëriñ bi nee na lu ci waaye mën ñëw ànd kook ñoom ci liggéey bi ba ni ko sëriñ Muntaxa amee ni mu ko bëggee te xam nañ ne dana ko am nu bokk kook moom jël jër jël jërëjëf jërë ngeen jëf